macha allah oustaz ñu ngi lay jaajëfal bu baax a hmm. baax euh, di am mbégte ak kontaante bu baax a baax ci leeral gi nga ñu leeral hmm. euh, xam naa dañuy ñëw ba tey rek ci oustaz Assane hmm. euh, di ko laaj oustaz Assane sa diggante ak Serigne Saliou ñu bëggoon nga indi ci ay leeral ñu bëggoon nga indi nu ci ay leeral parce que dégg nañu sa diggante ak Serigne Saliou la loolu de moom soxna si sawar naa ci lool sax macha allah ci laaj boobu ndax xeyna sama sama ak Serigne Saliou man moy digante yeen ñi fi tok ñëpp ak Serigne Saliou rek ndax Serigne Saliou su ma koy misaal dama naan ab jant la won rek ku ci wul ci yaw la waye jant bi mom su yekete ko ba ci kaw ñëpp la fi nekkal waye nak euh, nit ku nek tamit su jant bi nité su so so soo xel melni ni man da ngay fogné sa kër rek la nit <laughs> wala nga texe sëriñ Saaliwu jàllale naa doon gi mu doon doomi sëriñ Touba ndax sëriñ Touba ni mu ko tànne kenn ku nekk xam na ko dafa waxoon mag ñi ne leen koo xam ne juróom-ñaari maamam dañoo mokkal alquran moom laa soxla ñii tànn di ko wér ba fekk ko ci njabootu sox fekk ko ci soxna Faat Jaxate mi nga xam ne moom meñ Serigne Saalihu nga xam ne moom mook Serigne Abdou Lahad seeni wayjur ñoo bokk ndey ak baay ñu tànn ko indil ko Serigne waaye li nga ciy dégge mooy Serigne du juum booba ndekk li muy wut mooy ku mu denk alquran ndax malakanil quraanu tamlikan yadoom sunu borom moom moom loo alquran moom goo xam ne day sax alquran nag li koy saxal mooy lu mel ni sëriñ Saalihu Mbakke def dëkk boo dem sënc fa daara daara joo dem joo sënc dugal fa 313 wala lu ko ëpp ñuy mokkal di bind loolooy saxal alquran ndeke bi sëriñ tubaab di werlu ko juróom-ñaari maamam mokkal alquran ku mel ni sëriñ Saalihu la bëggoon mu ganee njaareem jamono it li ma waxoon léegi it dellusiwaat ci sëriñ Saalihu ndax bi sëriñ tubaa demee ci géej gi bom donte sëriñ tubaa moom mosta manqué waaye bi mu demee ci géej gi ba xam ne am na loo xam ne mënu ko woon ñàkk te ci géej gi la ko amee moo ko waxal boppam ba ñib siwaat kon la mu soxla woon lépp am na ko ci la sëriñ saalixu feeñ kon sëriñ tubaa dembam mhm. maanum te ne mhm. euh, ax falia cheikh masonatlaahu mhm. man xaw ma siru masoon mais ñi ko xam nee nañu soo ko gisee mooy ba yàlla bindagul aadama ba ba yàllay farden bi dara dëgg la de. sëñ Touba ne yàlla wuññil na ma ko ma gis ko. Ah, loolu nag li la koy xamal waxoon naa ko sama benn xarit Touba magal Touba bi nu toogee ma ne ko. Mhm. sëñ tubaa bi muy wax xusóor ya xalat wal ahlu anni tafarraqat mhm. ne boobu tubaa amul bi birigub ciment. mais xoolal baatu bi mu jëfkande ko mooy sama sama palais yi wet na. Mhm, te ay dool dool moo fa nekkoon ak ay néegi ah, ñax. mais sëñ tubaa baatu ma ne ko kon xanaa jamono bii la gisoon. kon soxna Ndeye daal ci gàttal. sëñ Touba daal noonu la jaaree Touba day fan julli fi julli gi yor-yor tamit julli fi julli farata Toubatul la julee eh, dem da nga maam eh, am na am na béréb bi sax ci Newraan fu ñu wax ne wàccaat na fa ba julliwaat fa muy foofu ñuy tabax jumaa ji ba mu continuer nag eh, ci la julee Toubatul. Mhm. dal di fa ñaan tuddee ko Toubatul. Mhm. sëñ gaawaan ñëw sëñcaat ko. Mhm. woote marché ba. dal ne leen ku jaay ba ngon bo jeexal ñew ma jënd li nga yor lepp bu samdee nga delu si motax marché bi tamit mel ni mu mel rek marché bu wali yu la sha allah oustaz asas ñu ngi lay jaajëfal bu baaxa baax di am contenté bu baax euh, ma sha allah euh, kon ñun wa reefan am nañu loo xamante ne euh, yombul way cheikhuna cheikh ahmad bamba jaar na fi julli fi defar fi lo xamante ni ma sha allah duñu ko mos faté xamna xam naa dama kay bàyyi mu yëngalaat rek ndax tay mom dañu wak activité mom xamna soxna ci rek a defaral ndéeki lu neex rek mu bàyyi ko mu yëngalaat rek yëngal gaay wasixtu bi rabbil asir juud wal afaa maal mustafa لمخلد سفا وسقت مع المختار بالله وحده علي السلام امان بيخن مع الاخوي وخاني بصائي ولي كان بالمنى ولي خاد اخلاصا اخلاصا بيخن مع صحبي وليت خديما في امتداعي محمدا محمدا علي صلاة الله ما سان لي نحوي ولا تقدما تقدما في امتداعي وسيلتي علي سلام الله محلي عسى فسوي وانا كل كل سيح من وسعي ورتبة علي المصطفى في قل في قل قل وائز وجه وجه وصال واصل واصل سحاب بهم أخناق ني الله عن وسيم وواب وسي وسيلة إلى خير ربي ذكره قد ما لخوي وفي بالرحيم ولي نبي للبرايا للبرايا رسول من رسول من بالإسوانا ساخا زسل واسطوي ودادي للبي والمخفى ومن حب والله لي كان بالغفي وسقت بباخ سقت بالنوبي خديما لخير الخلق بالمكسوازة أروم رداء يكلؤ لأصحاب من قلبي عواء يملؤ إلى إرد ألزم بي نبي خائدا لهم سور متى ينتم متى ينتم متى يمدرو متى يمدرو متى يداري سحب النفا بهم إلى حين خير كل من ليس يبرؤ الكفار والكل جسد سودنا للأعداء مساء في الرجاء وكل فجاء راز الكفر يجزأ كل متى يقصد لهم سوء تجرؤ يبعج باء يبكي ويمحى تجرؤ أي خادم الخطر المختار يا خادم المختار يا خادم المختار لا تنسى فمن يمصوم فالمدومة مخطو أبو بكر صديق صديق والوفاء رفيق النبي المستوى الخير أن بخير أبو حسن الفاروق سروعنا درو في تسدين مصطفى إسي زنزبو أبي زنزبو سوايا لا نرى سمنور نعم المبلغ وصبت المختار وهو ابن أمين علي على بقتير يوم المجرء أصحب رسول الله إني خديم محبا لكم في الله والله يقلق لأن يقبل نعم المؤمن عن الميل عن الميل أعتير والحق وأقمنه أبس لك الحب مع المين بالعقباد أم لفد على خلق وما أرضي أنا نويت دوام سكري وسكري لخير وراء نقبل عزين المسيل نبي رسول رسول خير عبد وسيد خليل خليل حبيب النساء ليس يحلل مجير مجير خريب ساكر ساكر ساكر جواد كريم بالمكارم يوسف يوسف وسلكي ولنم نسر بلا قسم عليم معلم Seydina Muhammad mas nañu ko génne mu dem ba Najaraan ñi di ko sànni daj xanaa day jabaraan Seydina Muhammad so xalame mbir ya amoon ca baawoon mbirum suy jaawaan oyof ci baatin seetaan borom muñ ayoo baa sax yaa ko dàq coow di wat ni kooba te teew ko sant di wax alhamdulilah moo tax ba yàlla naa ko néew mal xabdu seetal ma daani yàlla ma daanu jibteen ñu boole ko gaynde gaynde ko ci teen gaynde fëx di ma yeeram di ma yeer noon yaa ko jàpp xar jàpp xar jëmam jayaari muy bëgg a wax muy bëgg a wax yàlla yabal jibrilu ne koob naa ex dootu def mar soolu soo xale maam sunu Ibrahima laata am xalilan ak xalima noonam ya génn nañ ko muy bay feela la yàlla rendiloo ko Ismaayla ñu dellu ko taalal ba nu Namruusa def ko ci biir yàlla seral soraam sa seetal ma yoneen sañu daa yow balam ci nee ba dadaa si mooy rongañ gannaaw ba yuusufa sangoo boppam jekki saxoo yaa asafa soo xalamee yuusufa ak mbokkam yaa dellu xalam ka somba ak tuumaam yaa du tuuragal ilaa inaasi loxi xeeti ngir peem xanaasi na tub julit na tub julit ay maqaama ba mis bi ñaawteef bisub xiyaama la jal xayrul anbiyaa sidna Muhammad mas nañu koo génne mu dem mën a jiraan ñu ni ko sani doj te naa lay jabaraan sidna Muhammad noonu yaa ko génne Makka ngir bañ diine is rabbi ii la dem diina falaani kim xunti sidna Muhammad fanaan ci ay daj ana ka Baabakar lu nekk ñuy daj sidna Muhammad fan nañ ko sabbal ko ci biiru sarwaan jox nañ ko te teewu ko teewu ko de kemaan am na ci biir na ci mbir yoo xam ne déet na ko misaal wa wajabal imsaaka amaa sa jaraa ay dana lépp musal fili dara ndax ku xamul yaaram lu ko waar kumar arab kumar arab na seeti nuur labsaar gannaaw rasulullaay ak siddiqu lañu rendi usmaan dellu jamfaaroo macha allah ñu ngi lay ziar baax di la jaajëfal macha allah am na solo bu baax a baax. Euh, ñuy am mbégte ak kontante bu baax a baax euh, ci yëkkati xasida yi macha allah yal na yàlla waral baat bi euh, waa xam naa damay jox oustaz Assane kàddu gi rek di ko wax. boo doon dénk ndaw yi nga xamante ne nii ñoo nekk Touba Refane ndaw yi nga xamante ni dañu fee nekk te yëngu ci xasidaay Serigne Touba yi boo leen doon dénk lan nga leen di dénk. waaw soxna Ndeye. ndaw yi fi nekk di yëngu ci xasida yi sëñ Touba yi day li ma leen jëkk a dénk mooy li sëñ Touba dénk ñëpp ci xasida yi ndax sëñ Touba euh, dafa waxoon ne xasida yi day maa ko bind waaye fu ma àgg ci yàlla moo ma fa àggale daldi di leen su ma leen doon misaal man sëñ Touba ak xasida yi nii nii ñu demee mooy njannaaw ak ay dunqam daldi di leen donc donc kese day mënta naaw waaye njannaaw it bu ñu soqee donc dootut naaw daldi ne bin ko bind maa ko moom waaye moo ma yéegi ci yàlla ndax wax na ne tawaytu tariqal xawmi waxtam tidaihi wali xad xadal xaajaati bi radd wal bas xam nga yonu ga yoy muy wax mon nga ci bolé sax yonent ci sallallahu alayhi wa sallam msallatu salaatu wasalaam sëñ tubaa na suma ma sama xalima gi ne ko ciap ci daaji fasiyene tag rasulullahi neena na liggéey doon dox fanweeri at wala ñeen fukki at wala ko op sunu borom del makoy koy texeñal ma dox ko ci sen sa wala ci benn bés lu mel nonu nak mu waxat ne khira'atuha nurun wa majdun wa rif'atun wa jalbu munadarayn ni'ma sawahida neena na jàng xasida day may nit ki leer leer nag lii tax xasida gi may la ko mooy nga jàng ko te sellal ko ndax yàlla dafa wax ne allahu nuuru samawati wal ardi léegi ne leen dina may nit ki leer waaye dina ko may personnalité boo gisee jànkati xasida yi di jàng te yàlla rek tax fu ñu gen mel ni sëriñ làmp mi nit ñi sopp leen bëgg leen mooy personnalité bi nekk ci ñoom xasida yi ñoo ko ciy def mooy majdu dana la yëkkati tamit ba yow loo xam ne boo ko doon jaar feneen pour am ko mën nga koo lijjanti fanweeri at jem kaw doo ko am nga jaar ko ci xasida diir bu gàtt xasida yëkkati la ba nga toll foofa waaye nag way jël bu mun naa daaray ni maanu ak leerug àdduna maanu xiiwalug àdduna ak alaaxira xasida moo gën a gaaw ci ñoddi ko boo ci am na ci xasida yooyu sax Sëriñ Tuubaa da leen di jagleel ni comme bu shifaa yi xam nga ba mu koy ba mu koy ba mu koy tarjumaan dene xamdan li mun si li danan wadaa yi sëriñ Ibrahima Jon sama nijaay yal na ko yàlla yokk yermande wax dal ma ne ñaari feebar la sëñ Tuubaa ci xasida gi tut ci ñaari saafara muy dannan ak daa dal di ne wamun si shifaa yi wa dawaa yi mu ne ma dannan jàngaro jooju nee na shifaa a faj léeg-léeg nga dem ci docteur yi ñu faja faja faja faj ba ne la demal ci sëriñ yi ñaan boo xam fekk dangaa yóbbu feebar boo xam ne bokkul ak feebaru médecine léeg-léeg it nga dem ci sëriñ si ñu ñaane ñaan ba sonn la demal ci docteur yi fekk yow dawaa moo la war a faj nga dem di jéem a faj wa shifa moo tax mu ne xam li mun si li danan wa daa i wa mun si li shifa i wa dawaa i xasida googu dañu wax ne soo tawatee di ko jàng wala tawat ñëw comme ji ñëw nga ragal ko dee ko jàng di ñaan wa dum alayhi fil i wa sa sabaax wa axlisan mooy li ma waxoon léegi soo ko selalee rek loo bëgg danga nga ko ci am awa li may dénk ndawi Touba fan mooy nañu ci jàpp te sellal ko wax naa ko aroona mi doon jàng léegi ma ne ko yéen ñépp mën ngeen a mel ni sëriñ akasaasam wala sëriñ xaadim gi wala sëriñ falu njaay te kenn du yàqal sa moroom dara ndax xasida yi ñoo yaatu barke bi moo rey ki ko ki ko ki ko wax ak ki mu ko wax sëriñ Touba mas na ko wax sëriñ Masamba ne ko Masamba ki wax wax ji du nit ki ñu ko wax du nit muy xasida yi daldi ne xasida yi day man sëñ Tuubaa ci laa texe ci laay texeele ku ma bokk ci la maanaam li mu am ci yàlla ci xasida yi laa ko amee dal di wax ne su élégué tamit dégg naa ci kilifa gu mag mu ne jànkat si xasida yi su élégué fa ñu leen di fayee sunu borom def leen di làq na le dal di leen jox li mu leen di jox ndax su leen fayewee ca mbooloo ma nit ñi dinañu leen ñee ba ku ñu fayoon nga nga xeeb li ñu la jox waaw kon xasida daal soxna awa bu may denk ndawi Tuubaa fan mooy nañu ci jàpp te sellal ko bu ñu waxee jànkatu xasida it du caageen ni kuy jàng ñu lay awul wala kuy jàng di rajas wala ñépp ci la bokk moo xam sa néeg nga nekk di durus moo xam dangaa dem ci programme bi toogee ne yor sa sa xasida di durus na sell rek te sëñ Tuubaa rek tax soo ko defee di nga jot ci barkeeb xasida te xasida li mu mën ci ab jaam sëñ Tuubaa waxoon na ko dafa mos a wax ne man day léeg-léeg nit jox ma ci sama kër gii ma gis nit ci sama kër gii mu defaru ba jàgg te fekkut sax mu mos maa jox loxo waaye su ma ko laajee sunu borom bi dara umpul del ma naan Ibra Faal la ko defar mbala xasida nag ñi fa nekkoon ne ko ah Mbàkke kon Ibra Faal dina defar mu ne leen ku ma defarul Ibra Faal defaru xasida defaru la doo defaru daldi ne ku ma ràmmuwut su elegee xasida ràmmuwu la doo texe kon li Sëñ Tuubaa moon muy defar ak ràmmu ndekki xasida doo nga ko moom dal di mm-hmm. Mm-hmm. sama mbind mee ko dàq defar walla kitaabati faqat siyooxa tarbiya nee na sëriñu tarbiya mm-hmm. sama mbind moo ko raw feeñ na ci xasida gi nga ci ubbee njàng mi muy saana mm-hmm. ilaahi bin munaajaar mm-hmm. sëriñ joogu ciy waxtaan demb sëriñ saalihu juuf maa ngi koy nuyu baax di ko siyaar muy leeral tarjumaan ji sëñ Tuubaa nee na xere bu rasoolaay mos a xere xasida gi taxaw na taxawaayub xere ba boo ko jàngee te yàlla rek tax di nga mel ni taxawoon nga ca xere ba dal ne ak xere bu keneen mos a xere ngir diine rek muy saana ilaahi te ñeenti bayit rek la nga xam ne kon xasiida li Sëñ Tuubaa mon muy defar ak ràmbu xasida doo nga ko mon dal di waxaat ne su elegee it aw ma jot ak ñoo waree fan ne ana ñu ñu ne ñu ngi nii ñu ne kaay leen ana jaareem ñu ne ñu ngi nii ana Tuubaa ñu ne ñu déedéet nee na sama xasida yi laay woo ana jas bu nee na su jas bu ne barit di ñëw ci man Sëñ Tuubaa ku ci mokkaloon wenn bayit wala nga mokkal ko suy ñëw du la fa bàyyi <laughs> boo ko boogee jël misaal mu gaaw xoolal mbind mi ñu bind ci kayit wi mhm. tey su ma soxla woon kayit wi est mbind mi dina fa des boo mokkalee jas bi wala mu waaxi bi wala gu mu doon wala wenn bayit nga mokkal ko ci mhm. su ko sëñ Tuubaa wooxee bayit wa moo la ëpp doole foo nekk dina la yobbu murit yi yépp taxawandoo ci kaw si kanamu sëñ Tuubaa kon daal ndawi Touba Refane li ma leen di dénk te sax ñu ngi ca yoon wa mm-hmm. nañu gën a góorgóorlu bu xasida yi dañuy sellee lu ñu bokk ak fu ñu bokk dekk bi ak dana fa ak insha allah kon daal soxna Awa maa ngi yemandi foofu macha allah Oustaz Assane ñu ngi lay jaay jaajëfal bu baax a baax xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak mbokki téléspectateur yi lay seetaan ndax waxtu wi xaw nañu xoj mm-hmm. euh, dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak ñoom rek looy tàggatoo ak ñoom waaw euh, maa ngi koy wax léegi sax ma ne leen tey la aljuma xam naa euh, xëy na bu ñu mën a yiweeku rek ndax dañuy waajal juma ji li may tàggatoog mbokk yi tamit mooy nun ñëpp daal li nga ma laajoon muy murit bi nekk Touba fan nan la fi war a nekkee loolu lay tàggatoog mbokki Touba Refane murit daa am jikko yoo xam ne ñoom la war a jikko woo mooy murit day jëfe ndigal murit ab sëriñam du digle ba pare mu walbatiku naa li sëñ bi digle lu tax mu digle ko wala lan la ab murit tamit sëñ Touba nee na du bëgg lu dul yàlla xayra rida rahmaani xaysu xasada isil muridu laa yuridu abada nee na ab murit du bëgg lu dul yàlla muridulaahi mooy li muy tekki dama koy wax léeg-léeg may tooñanteeg gune yi fale ma ne leen léeg-léeg ma dégg ku naan namuma dara ma ne loolu murit waru koy wax ndax murit mooy ki nam yàlla ku namul dara nag man damay xam du ma wax du ma xam nu mu demee waaye murit daal day nam dara li muy nam nag mooy yàlla mooy muridulaahi ku mu mën doon nag doon teb yonent ga muridu laahi la moo tax murid amul tiijaan amul xaadir amul laayeen amul ñëpp ay muridi laahi lañu ndax ñëpp yàlla la ñu soxla yàlla la ñuy wut yàlla la ñu bëgg a dem kon daal li may tàgtooxee soxna ndey mooy murit yi daal maanaam surtout Touba Refane nañu gën a góorgóorlu te xam ne ñu ngi ci aw yoon sëñ Abdou Baaxe Fay wax na ko fii moom it yal na ko yàlla dégéral waru noo ndax dañu no xalal aw yoon ba pare mm. li gor gi wax fi dem rek mm. pentir yomb na nun dañuy pentir rek bâtiment bi bi ngeen koy pentir dafa mm. gaaw lool mag ñee tabax li fi nek mag ñee ko fi def and ak seigne touba def fi li ñu fi def nun ñoo ñu di pentir rek na rafet rek bu murit gi rafeté lu nu bokk am ko kon dal soxna ndey ma ngi wacce fofu kaddu yi di len ñaanal tamit yen, ñi nga xamne ne yéen a bi ñep yàlla na borom dugal fi ak deggo te di leen soñ ci ngeen gémm ko te rafetal ndax damaa déggoon ngeen naan taaru reefan kon nag nu mu gën a taaroo na la gën a baaxee bu leen xasante bu leen jewante bu leen worante bu leen naxante bu leen jiyante loolu su duggut ci ab ànd ànd ba dina dem incha allah kon daal na ngeen gën a góor góorlu te xam ne koo fi gis ba muy départ bu tolloo ci téeméer ba muy départ mënul woon benn koo fi gis nag di ko yem ci benn la commencé ba sunu borom mayu téeméer teg ko ca kaw <laughs> kon nak yeen it yalla len suñu borom eggale fu média ma sa egg ab télé ma sa egg ak ab radio yalla ngeen ko kawé noo ngi koy ñaanal dal di tàggu mbokk yépp di len sant di len giram wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sha allah yal yalla yàlla nangu ñaan te ñu bokk ko xamna naa euh, sëriñ làmp moom dama kay bayyi mu tàggatoo ko mbokk téléspectateur di koy seetaan damay way Cheikh ibrahim wala damay way Cheikh ibrahim rek way na neex rek mu mu neex lanu ko may ba julli wàcc waa këram du ca dal waa waa jukki weddi ko may ba julli daax si xibra faal yaa nu manal fii manal nu fa nu jëm fa nu jëm fa nu jëm yow de yaa man ci lekkal ma ne fu laa jaam yaa nu defar saadatu daari bu nu Sëriñ Tuubaa nu am noonu rëy ni Amad Faal borom waaw julu wi del ko yowmal xiyaamati dawal nga tuub ko sa xibaara jëbaloo bëri bay wax na fabal fabal layla la ilaha illallah fal fal jërëjëf macha allah macha allah neex na am na solo xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak ñi lay seetaan hmm. waaw kay sant bu baax di ñaanal oustaz di ñaan sa borom dëgëral ko te barkeel ko bu baax di ñaanal mboolem ku fi teew bis ni ki tey maa ngi ñaan ci barki xasida yi balaa déwén yàlla bu kenn manqué te yàlla na ñëpp mucc te yàlla na ñëpp am xéewal di ko ñaanal waa Touba Refane gi yëpp di siyaari Sëñ Asaatin di ko ñaanal sa saxal ko te wëral ko ak mboolem ku mu njaboote ku lim da juum di siyaare bu baax sunu yaay ju baax ja ci kër ga yaay maam say nga xam ne bi ñu fettee ñëw ci daara ji ci loxoom lañ njëkk a tege mu yor na di siyaare mboolem kuy soxnaam di siyaare bu baax sama yaay may Maymuna nga xam ne ñi ma xam ñépp dañ ma xame ak moom ma nekk dongo ni ci daara ji mu nekk sama ndeyi daara daa ma defal lu ne kóllëre goog di dox ba tey jii reefan bi ma takkee soxna samay njëkk yépp fii lañ bàyyi ko kenn ki doom Sëñ Saala kenn ki doomu yaa Maymuna kon li ma waree fal defal fàttewuma ko te mu ngi ci sama xol te it e, bu ma yàlla mayoon tey ay milliards danaa fi def loo xam ne ku ko gis da ne kii waree fal ñoo ko defal lu mu am loolu moo ne ci sama xol te yàlla xol rek lay àtte may siyaari sëñ Cheikh mais nga xam ne ñoo foowandoo ñoo defandoo lépp moom it muy jàng ko bu mag ak si motodaay mi nga xam ne ginnaaw yàlla ñun ñoo tax muy góorgóorlu ci xasida yi ak kii doon jàng léegi sëñ sëñ Arona ma ma leen di ñaan rek balaa maa tënk ñoom it comme fi leen dëkk te barab bi seen barab la ñoom it nii ñu amee émission bi bëgg naa kenn ku ci ne amee ko noonu. ndax loolu man sama mbégte lay doon. maa ngi sant ñëpp di siyaare ñëpp di siyaare sëñ Njóobu moom it doon nañ déggante di siyaare sama mag ju baax ji nekk Argentine Baye moom it sonn ci lool boobu waxtu wu ne mi ngi may vocal di ci sonn ngir ma ñëw teewe jataay bi xëy na niñ ko bëggee woon sax amewuñ ko ni waaye nag bu yoon jeexut waxe su du jeex waaye mbay noo ngi sant ñëpp sunu xol sedd na bàyyi bàyyiwuñ kenn caméraman yi ak ki nekk ci xarala gi ñëpp rek ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah sama borom yàlla na faj aajo yëpp allah sëriñ allah yal na allah liñ naan li duuf ci nag wi xejul ci cin li waaye amaana bëggoon nañu mu gën a yaatu hmm. hmm. eh, di am mbégte ak kontante bu baax a baax eh, ci bàyyi xel gi ngeen sama caméraman yi caanaar lébu ndooy maali mariam ndooy borom fukki penc ak ñaar hmm. waaye du ma fàtte xaadim bamba ziar leen di leen ñaanal jàmm bu baax allah Hey!